def naa tur ci réew mi. man maay bëre moment bi yaa rek lay taxaw sama yaay taxawuma dëgg la moment bi yaa rek lay taxaw xoolal lii moment wu yaay booy ñu ngi xëppee papa la gàllaaj ñoo ñu ngi xëppee yaay ji image bi xoolal ma image bi ndeysaan ñu day na waar lool day na waar oh. image c'est image historique la ilaha illallah waaw waaw awa pire amatina ndaanaan waay awa pire amatina phénomène Amar yaa ngi may toppal lool oh pire amatina phénomène oh Babacar waay sama xel ñaaw na de combat bi sama xel ñaaw na <laughs> amoon na fi oh, oh. oh boy waay boy lamb waay Pokola waay waay Pokola c'est yaram daw na bi dem na sama xel ñaaw na daw oh, waaw waay image bi yaram daw na yàq def image bi ma gis image historique waaw Babacar Mbaye amaa xamoo yaramu kan nag moo daw image bi ma gis image bu Oh. waaye doom amul lu dul ndeyam waaye ndeyay bàyyi tey yaay booy. doom ndey su koy nampal da ngay xool. waaw oh, waay dëgg la waaw ah, waaw booy wàcc leen bi Bougane Pokola Baldé mi ngi nii di dem Pokola Baldé mooy dem nii Pokola Baldé mooy dem nii Abou Pokola Baldé mooy dem nii Pokola Baldé ma ngay dem Pokola Baldé ma ngay dem Poko Mbaam loolu pétale la wala lu mu doon abu Pokola Baldé ma ngay dem ngay dem Pokola Baldé ma ngay dem Pokola mbaam ma ngay dem ndax sawu mbaam bi dina ko topp am déet waaye ki muy dajeel njaago la njaago ku la mooy ki dooroon buur géwal door yu metti xeetu njaago yooyu la laa ilaaha illallaah Pokola ki ngay dajeel xam nga ko Pokola wu ñu di dem Pokola wu ñu di dem oh. xale yi ngeen def nànk rek te bañ a salteel yoon bi nag abu nañ dem si jàmm ñoo si jàmm mu ngi noonu mbokk yi waaw tus gëlu moom tamit ay waay ñi adama awaa feeñu daa tus gëlu taajaboon wallaay sama taaj bi abu fii ya bari fi ñëpp amoon ñu defoon ay njeen ñu wat leen ñu xuuf leen. dëgg la ñu mujjee watu. parce que laay yëpp. a ngi doon taxaw. ci kër gi moom Ely Diop. xoolal sondeel.

ànd ak këbsa. kumba ba lañ ca ginnaaw. ànd ak Maro Seras. ah yaa eh déet. géejawaay ndeysaan ma ne ko man ëttu lamb fépp laa dëkk lamb ñëpp laa amal jàmm Pikine géejawaay parcelle jàmm gën su ma eggee jàmm nga jàmm gën laa dëkk Pikine nga ne am Pikine la dëkk géejawaay nga ne géejawaay laa dëkk parcelle c'est la même chose sama jàmm ak ñoom ñoo ko waral mbër yi ne ci gox yi ci banlieue bi yàlla leen yàlla defal jàmm xale yi li ñu bëgg si lamb yàlla leen ko yàlla defal roi des arènes yi ñuy yóotu yàlla nañ nekk ci million yi du ñëpp ay doon roi zéro mais yàlla na am xale yi lekk 60 millions ak 100 millions 200 millions yi roi du ñëpp a koy doon de mais xale yi nekk ci làmb du si góorgóorlu mm. yàlla nañ yàlla suñu borom may li ñu jox seen waajur yi amu ngeen lekket bi deful cere deful soow deful njër ni deful sunguf lekket gi ay xarfa xurfaan yi débat yëpp la léeg-léeg mbër yi koy ñëpp daal <laughs> léeg-léeg am na mbër ba koy def si lam koy daante <laughs> léeg-léeg <laughs> ah xanc googu léegi ñu koy indiwoon day kër dañoo daanu ki li muy ay pom waaw sarax kenn ko sànni dañ koy joxe Kumba Baldé yor na ñaari mbuusu ndox Omar toppal ma Kumba Baldé man maa yëg ñoo far xam nga nag Gaston laa bokk yaa yërëm sama papa day saan waaw am na lañ ca Kumba Baldé mu nga taxawu doom ji ndeysaan Ousmane Ginte turandoo Falaye Baldé ngoog ndeysaan yor saako Kumba Baldé ngi war oto ba Babacar def ay débat de bañ xiir alxarafa xuufaam gaa yaa ngay màttu di génn ay wala ni màttu booy ay Liss Ndiago am na problème baram daana ngi doon di génn Babacar sëriñu Pokola la daa mel def la muy def gaa yaa ngi waaj dem stade ke yër na am ndeysaan Elu Diop la. ci la jaar jënd fi ay butéelu kii kenn du ko sonal de. xo beneen lekkat a ngi de lekkat ya bari nañu. mu nga yor ñax la yor am na ñu ma gisut ci lamb ji du ma tudd seen i tur réew mi dañuy ab damay dañ damay yàq